yee catalan yi li ngeen bëggoon am na muy kan seen coach boobee di Xavi boobu ba léegi yéen ngi naan moo yàq seen équipe te da ngeen bëgg mu dem finalement dafay jóge ci fin saison bi maa ngi ciy ñëw nan la naka la salaam gars yi bëgg naa leen nuyu ko ci nekk seen tur seen sant maa ngi fii ci benn restaurant sénégalais Côte d'Ivoire Yamoussoukro au bonheur la nekk au bonheur la tudd nekk foo foofee ca 220 côté boulangerie Calama boo ko laajtee rek lépp lu jëm ci wàllu lekk sénégalaise damay ragal doo ñibbi Sénégal ñëw ci AFC Barcelone kooku di Xavi le 30 juin annoncé que annoncé na que ni lay jóge Barça du continuer aventure bi nag li mu gis nii du continuer lu ko mooy Barça dafay gën a suux dem na ba xool xam ne ne direction bi tegootul ci temps waaye moom it naka noonu defut li tax Barça war a mën a jëm ca kanam a kanam mu ngi def lépp lu mën mais. ça va pas quand même catalan yi comme li ngeen bëggoon mujj naa am may na xaar ci commentaire nan ngeen gisee nouvelle bi ba xam kontaan ngeen ci wala da ngeen cee mer ou pas ngeen bindal ma ko ñu waxtaanee ko jàmm ci yéen gaa yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous. Eh, gars yi dañ leen indil historique équipe nationale Sénégal ak équipe boobee di Côte d'Ivoire puis vu que ñoom ñoo war a daje seen match yi jot am ci ginnaaw nu mu demee na lak nakal ak yi nga xam ne jot na ci xaw yu bëri la ñuy ñëw salaam gars yi. béggee naa leen nuyu ku ci nekk seen tur ak seen sant loolee nag ñu ngi ci ànd ak ñooñee di waa Oumou groupe nekk en partenariat ak ñoom ñu nekk en promo euh, ci kaan bi képp ku ci bëgg a profité nag mën nga dem ci www point oumouexpress point com lépp lu jëm ci information ci ñoom di nga ko jot ci njëkk ak teranga mu ngi noonu ak lépp loo fa bëgg daal demal foofee gaaw ñëw ci lan historique équipe nationale Sénégal ak équipe boobee di Côte d'Ivoire di leen fàttali ni en 1992 fii ci Sénégal dañu organiser woon CAN bi ñu ko fekkee xam na ci dara waaye am na ñoo xam ne gëm naa ni jamono joojee euh, judduñu woon ci euh, Coupe d'Afrique boobee Côte d'Ivoire bi nga xam ne fa lañ nekk actuellement nii ñoom ñoo ko jëloon ci 2024 bi na Côte d'Ivoire organiser ko fii ci dëkkam Sénégal nag continuer euh, jëm jëli ji Coupe d'Afrique bi nga xam ne moom la Côte d'Ivoire organisé nii mu doon loo xam ne nii yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ngeen xamee ko noonu mu doon loo xam ne nii daal euh, gëm nañ ne mën na demee noonu Sénégal jël ko leneen liñ leen di souligner na ci diggante Sénégal ak kooku di Côte mën naa ne match jot a football xoolee ci seen cinq derniers matchs euh, kooku di Côte d'Ivoire doon na Sénégal trois fois am deux ak kooku di équipe nationale du xamee ko noonu beneen événement bi nga xam ne jotoon na fee xew muy lan na Sadio Mané moment bi nga xam ne si la révélé wu ñëpp xam ko monde entier ne gone gi ah am na talent ci abonné bi mën na wane dara match boobu mu ngi doxoon diggante Sénégal ak kookee di Côte d'Ivoire foofu ci éliminatoire ah, coupe du monde bi waroon am foofee ca ah, Brésil en 2014 éliminatoire 2013 la woon Côte d'Ivoire nag mujj ñoo dóor ci noonee nag mën naa ni sax Sadio Mané ah, talent bi nekkoon ci moom dafa impressionné woon kookee di Drogba ci la ko ñu bëri révélé mu doon match boo xam ne ni match motivation la match la boo xam ci jógee Sénégal si la nekk ci la construction di defaruwaat nànk-nànk ba niveau bi nga xam ne ci la toll nii mu doon loo xam ne nii euh, mën naa ni euh, lu jara bàyyi xel la euh, moom lañ leen indiloon tey ji gars yi ànd ceeg waa Omo Group mu historique ci Sénégal ak kooku di Côte d'Ivoire

jàmbaar dugalal photo bi dugalal photo bi am na ñu kese est-ce que am nañ ko dugal wala la ban kër waay waaw gaar gay mel ni no prix waay do rek ko waay dañ teel a ñëw waaw eh eh eh bu dugal Cheikhou de bu bu tàggee Cheikhou de dafa perte bàyyi la mu dugg bàyyi la mu dugg yow rek laay topp. laay di wax. mais waa ji tàng na. mais waa ji tàng na. eh police. eh Krépin. eh Krépin. s'il te plaît s'il te plaît. je vous en prie. ñaaco. Sadio jaajëf Sadio Mané Sadio Ensayo. Ñanjo. Ensayo. Ensayo. Ñanjo. Mané. Mais Mané Mané. Al Nasser. Kapi. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais pas, pas viens me dropper ça. Eh Pape le eh Seexu boo ko si Seexu boo ko si génnal. Yes. C'est bon Les gars jàmbaar dugalal photo bi dugalal photo bi waaw ñun kese la ñu koy dugal wala le vainqueur waay waaw gerte gi mel na mo prix waay mo rek ko waay dañ teel a ñëw waaw eh eh eh bu dugal Cheikhou de bu tàggee Cheikhou de dafa perte bàyyi la mu dugg bàyyi la mu dugg dégguma 2010 léegi kon benn crépé la ñuy jëkk a dégg à part avant yow. <laughs> <laughs> waaw non non Sa Thiès moom indi fii mais Amadou moo doon mais dafa dafa dafa dafa dafa naan tànn mu ngi ñëw waaw waaw maa ngi xool xam xaal situation bi ba xam euh, comment dirais-je damay dem fële ou pas wala ba xam damay dem fële bu may demul fële ma def la suñu avant rek